cuuraay la ñuy yëngu wàllu yu baax rek xam nga sedd bi moom yeneen a gën a xam jógee Sénégal moom dañu bëgg lu baax te jamono ji lañu bañ quoi bu xawee sedd moom dañuy defar ba mu baax moo tax dañ leen préparel façon cuuraay yu nekk xam nañ fi am nañ ay nàkk jidda am nañ fi ay digg ja importé am na ay samedi soir tas sa sama yëf ak yeneen yeneen ak yeneen pots yoo xam ne ay pots importé lay doon bokkut ak yi xam ne ne ay njam njamaan lay doon quoi daal yëpp am na fi ay parfum mu jigéen Sénégal moom yéen a gën a xam cuuraay yi yëpp la importé la rek xam nga Dubaay moom dëkk ba dafa barkeel quoi ndax dëkk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yu si bari yi ni jaay yëpp yëpp fa lay jógee Dubaay la ñuy jaay ñun quoi. ah cuuraay dafa neex baax ci nekk day dundal xol ndax jéeg bu nekk war ngay taal cuuraay. ah waaye seddaay xam nga ne nga taal sa cuuraay ka ci sa mbaaj wala sa kuwet ah xam nga ne loolu dafa neex tàngaay bi moom xam nga moom ak kii moom àndul. secret euh, seddaay mooy euh, nga teel a boyal sa ànd def sa biir néeg mu nugg ah nga defar sa ay meew yu baax jox sa alaaji yaa ngi dégg génneel ko kuwet bu baax dalal ko mu teel a tëdd waaw noonu de laa koy doxalee def ba mu baax noonu de laa koy doxalee. ñëpp a bëgg lu baax sëñ ba tey dañuy taal ba mu neex ah damay taal ci ba mu neex ah, ah bien sûr. du malien yi rek ñoo bëgg lu baax tamit aussi. te seddaay bi ñëpp lay jàpp. ah seddaay bi ñëpp lay jàpp mais tamit faaw ñuy taaj cuuraay comme ça ñu kii xam na day sedd faaw nga taaj cuuraay nduggal néeg bi tuuti surtout ñu marié yi ñun célibataire yi nga xam ne amuñu ki faaw ñu taal cuuraay néeg ba xaw ndugg tuuti genre boobu. Ah, pour les femmes je le conseille si vous voulez que votre homme ah vous aime vraiment. venez acheter des cuuraay surtout si cette période là ah. ñoom bu ñu ñëwee daal cuuraay la wax rek ne proposé ma yu bees. nàkk dañ koy jën ñàkk moom du nag cuuraay boo xam ko moom nàkk la wala gowe la yooyu moom cuuraay traditionnel la depuis sunu maam rek day am chaque moment am yu bees yu génn comme ni ma ko waxee samedi soir tas sa cheva yéen ñu am yu bees yu génn quoi. Ah, li ñu jox jigéen ñi mooy ñu ñu ñu jënd yu neexee rek xam nga Sénégal moom cuuraay fi la nga fekk fi la nga bàyyi te sëy moom parce que bu nee cinquante pour cent dañ koy jox cuuraay ak yu mel noonu ko waaw 50 pour cent dañ koy dañ koy jox yu baax. d'accord. ndax ndax naan góor Sénégal jàmm la bëgg. Uh-huh. fekkee day ñëw doo ko defar yu baax. naa am naa Sénégal est ñu ñuy bëgg cuuraay. jaay cuuraay sax ñoo gën a bëgg. Ah kenn ba ñu ko la bokk de.